waaye tey nag xam nga lu ma fi indi. Mhm. koor gi ñëw na. ñëw na de man sama bagage koor yeeg ma jëndaloon mhm. daaw. xam nga chaque année yaa may jëndal ay bagage at mu jot nag damay changé indi yeneen vaisselle yu baax yu rafet moom ma mhm. tax a jógaat xaw ma foo toll ci man. gis nga bagage koor gi fi ne fa mu toog sax doy ko fi mu toog yow sa doom yi yow yaa yàq xale yaa leen yàq ñu ngi nii sural ma wépp fu ma ne nii rek ñu ñëw langaamu la langal ma ah en tout cas fàtte nañ seen yaay de waaye baax na nag naanoon nga waaw jus bi neex na de ya. ya, ya. mm-hmm. neex na trop jus bi neex na moom naan naa sax laa ko defaroon noonu ak sa pap xam nga ko daa bëgg lu neex yaa koy yàq tay maam bi nga koy jënd chaque jour loolu lay wax soo ko yéexee génne sax mu kaas mais jus bi neex na de neex na trop na ree sa jàmm xam nga daal lu ma lay yëgal mooy mm-hmm. doom da ngay def ni man bu dee ko rek soo tëddee nelawal dinaa mm-hmm. ko jënd dinaa ko toppatoo danaa la ko jox nga yóbbu fa mhm. bu boobaa nag nga won leen di leen doo seen moroom ñoom danañ na jonge nañ mhm. dañoo xamul ne may sa yaay ñoom xam nañ ne bokkuma ak ñoom sax ri yow yaa leen gën a tubaab gën leen a civilisé sa jëkkër yow la gën a nopp mhm. yow la jox nopp loolu nag bu mettee nañu góorgóorlu mel ne yow amul werante am de looloo tax seen xol di jeex bagage yi gis ma ko nii bu dee man dong man may bagage bagage moom du fi jeex li fi ne ci bagage sax mënuma koo jeexee léegi yow danga may wax ñaata nga soxla ma jox la wala mm. xam naa ni daal boo ma joxee soixante-quinze mille mm-hmm. waaw dinaa ci jënd li ma ci war a jënd yëpp mm-hmm. indil la ko waaw dinaa soxla ay café ak yooyu tamit waaw yooyu sax war nga ma ko utal café saaf bu neex nga defaral ma ba mu mm-hmm. moom am na yu ñu yu ñuy ci sachet yi sax man sama client bi sama grossiste bi sama jëndee rek tay da koy jaay waaw baax na nga yooyu amatul sax segg ak yooyu da ngay ñëw rek def ndox mu tàng sotti waa da nga neex na loolu sa papa ci lay ndekki saa yu xëyee. waaw ah, baax na kon am na sax yu ma ci desal fii waaye mm-hmm. xam naa du ñàkk baal ma jëndalaat la rek. Ah, waaw d'accord ko yaay nag aw ma toogaay. aw ma toogaay place ba bàyyi ma fa kenn. il faut ma dem dama ne woon naa fi jaar taf taf rek waa xoolal dinaa ñëwaat. Ah. nit ñi dama faa bàyyiwul kenn moo tax. waaye dinaa ñëwaat incha allah waaw ngay toppatoo sa bopp nag yaa ngi ñuul na waaw gis nga de nekk ci bagage yow ak coow lu bari li ci kër ga munoo am jàmm fàttel ma leen ñëpp jàpp la ku ne di ngëw ti ngëw di ngaaw ngaaw rek lañu fi nekkee ma leen di yow toppatoo sa yaram bii dëgg la ah noonu de laay def loolu laa fas yéene def daal xaaral man ma ñoo dem léegi nag kon ba kañ. wala ba fan yii rek waaw ba fan yii waaw yow dinaa la ko envoyé sax. seen yaay la ko yónnee seen yaay ñoo dem nag. <laughs> maa ngi ñëw dem. Hmm? nii waxuñ ci yow dara dara dara dara. c'est bon.